maa ngi tudd fali seen saw maa ngi dëkk Dakar fii fii laa liggéeyee tamit donc maa ngi bokk ci artistes yi ñu sélectionné ci expo internationale bi palais de justice maa ngi def fii tey tamit sama off donc euh, voilà maa ngi représenté ay scène de vie yi nga xamante ne nii moom mooy décrire li nga xamante ne moom mooy vie social économique aussi ci li nga xamante ne nii mooy wàllu koom-koom ci secteur informel bi daanaka daal ñi nga xamante ne dañuy liggéey tey am tey di wut lu ñu xëy jaay di di yëngatu daal di daan seen i doole donc ci loolu laay jéem a gëstu pour xool seen seen dund léegi ak ni ñu occupé dëkk bi ak décor bi nga xamante ne daal ñu ngi koy présenté voilà. voilà ma représenté ci Colobane parce que fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa màggee fa laa xam te li ma liggéey daanaka quartier boobu moom moo ma inspiré mën naa ne. matière bi may utiliser yu may gis la rek yi nga xamante ne mooy daanu foofu ma xool ko mu may jàngal ma am ci njàngat yoo xamante ne daal jox na ma pour ma jël leen jëriñoo leen daal dugal leen ci yeneen i dëkk. jërëjëf merci. waaw maa ngi nuyu ñëpp euh, waroon naa commencé ne salaamaaleykum sax defe naa da ma fekk ma sonn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal di leen wax ne man sama liggéey mooy aada ak cosaan aada ak cosaan rek laa xam nag. espace bu mel nii xam naa ne su ma ci jaayoon ceeb baa ma jaay ci dëwlin baa ma jaay ci euh, lu leen milliardaire lay nekk mais nag man sama wàll mooy aadaax cosaan sama wàll mooy jox gëdd aadaax cosaan sama wàll mooy xamal nit ñi ko li nu am fii suñ ko liggéeyee mu jaar yoon on est tous des milliardaires aujourd'hui notre culture c'est not identité suñu identité ak suñu cosaan mooy li nga xam ne moom la ñu yàlla may moom la ñu mën a wasaare moom la ñu mën a jaay moom la mën a teg xale yi wal leen ci yoonu liggéey mooy li may wax sànq exposition bi tey li waay si def nii mooy marché Colobane ku nekk xam nga fan mooy marché kolobaan ndax ku xëy suba da dem marché soo demee marché ay nit yu baax nga fay fekk ay jaaykat nga fay fekk ay góorgóorlukat nga fay fekk yu ñëw di daan seen doole donc c'est des métiers nobles tey il a montré ko moom man li mu teg fi jaaykatu këriñ baa ngi ci jaaykatu ngooñ baa ngi ci car rapide baa ngi ci lépp ngi ci loolu day wane rek métier yi nga xam ne tey am na yu bari dañ ko fàtte mais suñu leen jëlaatoon dina créer emploi bu baax ci dëkk bi